léeg-léeg li ñuy wax rek nit dina am yéene goo xam la muy lanc sax du ko mën a yàbbi waaye ñu delloo xam ni rek mu ngi dellu di bég ci mboolem dongo yi sëñ Tuubaa yi ne ci dëkk bi yëpp rawatina nag jëmm yi nga xam ne ñoo amal bis bii muy wàccaayu safar di ziyaar bu baax sañ maam Thierno Amar mi nga xam ni xëy na sabab gi ci moom la jaar at mboolem dongo yi nga xam ni ñoo ànd ak moom ci liggéey bi yëpp di ñaan rek yàlla nañu ko sëñ Touba nangul moom mi nga xam moo ñu tax di jëf bu loolu weesoo it eh, ñu jël soññe goo xam ni dañ ko ci teg ndax defe naa xëy na bu bis bi tombul woon ak safarit fii moom mënuñu fi woon a bañ a ñëw ndax li sabab loolu mooy caravane bi nga xam ni kenn ku ci ne xam na ni fu weeru safar bi musaana teroo rek daan nañ ñu ko amal ngir wër daayare yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ngir soññ leen ci bis bi nga xam ni amuñu lu dul moom sañu kanam te wat nag bépp bis boo xam ne rek lu ñuy amal ci yoonu murid la kon loolu moo waroon nag moo waraloon ak sañu ñëw tey fii ci daayira bay Fall yi nga xam ni sëñ Assane bay Fall mais mooy seen jëwriñ muy jës wul Murid ñoom la waroon seet si tey ni ñu ko defee ci daayira yu bari yu ne ci dëkk bi sabab bi nag lu leen lu dul rek soññante bu baax ci màggalub sëñ Touba bii nga xam ne moo ne sañu kanam ni ko sëñ Talla waxee léegi. noonu képp la damay wax ni doyoon na sëkk rek ñu ni sëñ Touba moo ne képp koo xam ni sa sama mbég sa mbég la ñëw leen santale ma ci bis bii loolu rek doy na sëkk aaye juñ fi mën a teg bay di juñ fi mën a teg lee dakaa wat ndax loolu moo doon waxi boppam leneen lu mu ci doon rek nite ko ci soññ nite ko ci soof ngir soññ sa mbooloo waaye moom sëñ Touba bis bii ñu dërmal la ne woon képp koo xam ne sama mbég sa mbég la ñëw leen santale ma yàlla sañu boroom ci bis bii ndax defal na ma ci loo xam ni sama sant bopp man dama cee lot kon jàpp naa ni bis la boo xam ni moom ku mu ne toog sa nopp rek danga waroon maanaam di miiraa sa bopp jëm ca ba keroog bis ba di ci yegg li ma koy waxee saa su ne nag ñun ñi ñu yaakaar ginnaaw bi ñu noppee gis sëñ bi muy doomam yi nga xam ni ñoo fi jaar. ci sañuy nopp niñ koy waxee kenn ku ci ne xamoon na ni bis bii ñu jërmal amu ci woon sago dale ko ci sëñ mu Moustapha ba ci sëñ Saliou Mbacke muñ mujjee gis dale ko ci sëtam yu tedd yi tamit ba ci kii nga xam ne moom lañ nekkal tey ji amul kenn koo xam ne rek amoon nga sago ci bés bii ñu jëm te ñun ñëpp ñoom lañ yaakaar bu loolu weesoo ñu ñëw ñun sañu biir ñun taalibe yi kenn ku ci ne xam na ni képp koo xam ni sa moroomu dongo la nga koy dégg fu sori maanaam rey boppam ci bisub sëñ Tuubaa bi moo ko may loolu te loolu firnde déggu leer naññ la guñ ci am kon mel na ni kon war nañoo sañ a soññante suñu biir ngir yéenante yiw yooyu sañu biir waaye soññe gi teguwul feneen ak fu dul foofu ndax walaay lazim yoon bi nit mu muñu fe munu fee def nit munu fee def ci yoon wi lu muy xëy di gis wala loo xam lu rëy la déedéet lu fi waay def rek barke sëñ Saaliw nit def na fi loo xam ni te doomu sëñ Tuubaa lay doon yoo xam ni sa sërq lay doon ci moom def ci yoon wi loo xam ne tey jii loo fi mën a def rek ak ak def wat na lool ci zaahir nag laay wax muy lu mel ni koppar ak addiyee joo xam dañ koy génne di ko def ci màggal gi kon yaakaar naa ni ñun ñi nga xam ne ay jam-jamaat lañ ñun dañoo waroon kon 19 safar muy màggal ba ca suba sa lañu waroon kon di ubbi kees yoo xam ni dañuy def lu ñu liggéey buñ ko mënul ne tipp ci digg bi jox sëñ Touba te xam ni li ñu waroon mooy ñu jël lépp def ko ci kees googu kon nag ñu war kaa mën a xaajal def ko ci kees googu jëm màggalu déwén ndax loolooy dëgg-dëgg dox gi nag waaye ni ma ko yeex saasu ne rek seytaane yi ñëw di ñu tegal sañu xel loo xam ni di la oyofal lu diis gann loo xam ni wax dëgg yàlla dangay dem ba mu gi sax bés ba jot nga yem gàllankoor yu rëy te fekk ni dara dara waralu ko lu du pexeb seytaane waaye ni bis bi demee ci ñun ni bis bi demee ci ñun mooy ni sëñ Touba demee ci ñun ndax bis boobu la joxoñ ne lu mu am sañu borom rek bis boobu moo ko may kon nag li ñu war ñun ñëpp li ñu war ñun ñëpp mooy ñu jaayante bu baax a baax a baax ci liggéey boobu sas yi nag jib na jëwriñ tebbi na ko ne 4000 CPS la bopp bu ne 4000 yooyu nag ni ma ko waxee saa su ne bu ñu jàpp som bi ndax wax dëgg yàlla. ki tax ñu koy defal daa daa dépassé ci ñun mbirum àddiya ay ay somme daa dépassé loolu ci ñun te kenn ku ci ne ci ñun ñii kenn ku ci ne ci ñun rek amoo loo mën a daj loo xam ne lu la sëñ Tuubaa defal la amul bu la daan buñ la daan laaj lu la sëñ Tuubaa defal doo ko daj mukk ndax xel daju ko te biir nañu rek li ñuy am li ñuy mën yëpp moom sëñ Tuubaa moo tax mu am li sañu borom li ñëpp di musu nag ku xas ba juddu rek ku sax ba sañ borom amal li ngay musu rek mooy mooy safara te wax na ni bu du bu du woon taalibe gi ñu doon taalibeem lu mu gàtt gàtt gàtt lu way baax baax baax di nga ziyaar safara doo ko dem feneen kon mu mel ni moom bi mu ñu nee jàq ñun ñii dañoo doon bokkoon ci ëxlu boo xam ni ñu doy waar lañ mu bëggoon ñoo dimbale mënoon naa dem ca naar ya tànne fa la mu fay tànne def waaye daa fekk xeet goo xam ne kenn xamul fu ñu jugee koo ci bëtt maamam juróom-ñaari yoon rek barki sëñ Tuubaa ceddo ngay dem bu wët ndax moomu sa am senegal mu fekk ñu fa def ñu noo xam ni ba tey ñu taxaw ñu ñu sañ a taxaw ak ab shérif bu waxee ba tëdd dëndam ñu te wax seen tëdd seen dënd ne ko gënoo ñu ndax laxsoo gi ñu laxsoog sëñ Tuubaa kon nag kooku defe naa ni bu bisam ñëwee buñ demee ba toog ci tebbe sas mu jógee ci jëwriñ ñu jàpp kaddu yi kàddu yi li may wax saa su nekk rek nañ jàpp kàddu jëwriñ yi ne waxiw sëñ Tuubaa woo xam bu tàbbi sañu biir la kenn ku ci ne loolu ngay jàpp waaw buñ jàpp ni xëy na yanqoo bëggay mais dem déedéet nañ jàpp ni jëwriñub sëñ Tuubaa la moo génn ay doom ne 4000 mooy spéciaux mooy mooy sas wi bu ñu xalaat leneen jëwriñ joxe na joxe na ndigal nañ daw jëm ci 4000 nag damay jël man évaluer ko sama diggante ak sëñ Tuubaa mi nga xam ni moom laa ne moom laa yaakaar moo tax ma doonub nit moo tax ma doonub murit moo tax ma doonub jullit te bu dul woon moom làmbaay ñaaw damay jël 4 millions yi teg ko jël seen tubaa teg ci wetu 4 millions yi bu manqué dërëm rek li may woote gëwuma ko man te mboolem 4 millions yi li ma koy wax saa ne kenn bëgg kaa jaay ñetti fan ku fi jaay mill pesos ñetti fan laa wax di nga woote Sénégal ne da ngaa umu wala nga tàmbaliwaat ci xës di di dus jàpp xew looloo ñu daal ñun ñëpp ñu ngi sant màggal gi at la ba at looy bañ a jaar ci ñetti fan nag wala ñeent jàpp naa ne boo demee ba ñu laaj la ko ci bisub seen Tuubaa boo xam ne lam ca wax lu leer nàññ la wallaay la zim boo ci amee sikki sàkka seetaatal sa bopp bu noppi sëñ Tuubaa moom noppi na ci jaam yi waruñu nag ñuy jëf ci sëñ Tuubaa ba noppi gi ci xalaat sax ak pay ndax man de damaa jàpp ne daa araam sax ci murit ngay jëf ba noppi ci sëñ Tuubaa di xalaat naan dinaa ci amaat nangam waaye ñoom ci seen si seenu baax barki Dembo Njaay lañu ñu sëñ Saliou Mbacke wax ne addiya day fekk fu dara newul mu def fa dara fekk fu dara ne mu baril ko fekk fu lu bari ne mu barkeel ko barki Dembo Njaay la ñuy wax ne ñu màggalu seen tubaa gii fu fi ñaar nekkee ñaar ànde moroom ma gën kaas fonk moroom ma du noppi mukk di gis lu mu koy féete kaw ba faaw barki démb lañ sëñ Saliou wax te ba léegi ñu koy dégg ci yi kon jàpp naa ni nag bu ñu demee ba sañu borom dimbale ñu ñun ñëpp ñu génn nekk bitim réew te li ma wax saa ne rek Sénégal gee daan nañ fa soñ ci màggal ñun ñii ñëpp dañ daan jaayante ku ci daawul yeew nag daan nga xar ku ci daawul yeew xarit daan jël ginaar yu bari di ko bernde dañoo ñaan nag ba soñ borom génne ñu kenn ku ci ne ci mun rek wallaay lazim si sa wërsëg yokk na yokk bàyyi boo xam ne am na ci ne Sénégal ñoo xam dalu leen te tey jii boo demoon Sénégal benn murit nelawatul ñun ñu ne fii nag di woote loo xam ne wax dëgg yàlla sëñ bi yokk nañu ba ñu yëg ko daa war a feeñ nag feeñ gi nag duñ ko yamali sañu bopp ñun rek dañoo ne ci dëkk boo xam ni ay nasaraan dañ fee dëkk ñoo xam ni xamuñu yoon bi dëkk fi tey li may wax saa su ne rek sëñ Tuubaa li ko indi woon ci kaw suuf mooy fekk lu bon mu baaxal ko donte benn la waaye na leer ñëpp ne fekk fi lu bon mu baaxal ko moo ko indi ci kaw suuf kon ñun nit bu ñu ñëwee ci dëkk bii war na ñëw góor góorlu ci sañuy comportement war na ñëw góor góorgóor ci sañuy doxalin war góor góorlu ci sañu nekkin ba saa su ne ñuy doxee noo xam ni bi sax dana jot kenn ci ñoom nasaraan si nga xam ni xamuñu yàlla xamuñu yonenteem xemmeem ñu ci li ñuy doxee ba fekk si ñu ñu war leen lu dëgg tàbbal leen ci yoon bi wallaay lazim benn boo ko ci defee moo gënal sëñ Tuubaa juugal ko ay milliards ndax loo ko looloo ko taxoon a jug waaye képp koo ci xamit yaa ngi doxee noo xam ni tey jii ñoom nasaraan soosu dañ lay gis di la xeeb ba maanaam fekk si gi ñu waroon fekki ba ba xemmem li ñu nekkee ba sëñ Tuubaa nangu leen ca nam ko waxeen képp koo xam ne yaa ngi gàllankoor loolu xootaatal sa bopp waaye yaa ngi gàllankoor liggéeyam sëñ Tuubaa ci kaw suuf ndax loolu rek a ko fi indi fekk lu yonent bi defaroon mu dem ba yoon bi ne waat sëkk ki xaaxaam mu fekk mu ñëwaat gajj ko ba mu set wicc mu jaarale waat gaañu baax ñi kenn ku ci ci ñun nag war ngaa doon ambassadeur si sa kéemtalaay kàttan si sa kéemti lay kàttan ba heure boo xëyee di dox boo nee jàq nasaraan si loo mën a def ba naxante ñoom waxtaan ak ñoom ba donte kenn la rek kenn ci ñoom rek nga jéem a fexe ba mu doon muritub sëñ Tuubaa ak ak garaat la goo xam ne wallaay la zim ba badar mënu kaa takkal nit te leelu kenn ku ci ne ci ñun rek war nga cee bàyyi xel maanaam liggéey bi du dajale xaalis rek dem déedéet sañ borom dañoo nattu indi ñu fii bu fekkee dañoo bëgg maanaam liggéey seen Tuubaa fii la gën a gaawee ndax fii la gën a rafle te damay wax sax ne maanaam màggal fi màggalub seen Tuubaa fii ci dëkk bi man de man li ma jàpp man màggalik seen Tuubaa fii ci dëkk bi mën naa faaw ko téeméeri màggal defe ko Sénégal ndax màggalu Sénégal mënootoo faa def luy jom lu jaaxal nit waaye fii ñu nekk de war nañ fee mën a màggal ba tubaab si di laaj màggal gi li ko waral lan ak lan lan la ñu jaaree fa waxtaan ak ñoom noo xam ni. danañ fa jaaree ñoom xam maanaam ki ñu àndal ban position la am ci diine lislaam ci dara fayu ko barki sëñ Saliou Mbacke te loolu fii ñu nekkee ñun fa lañ ko war a mën a liggéeyal sëñ Touba waaye bu ñu bëggee nekk ci dëkk bi nag dooni muriti sëñ Touba dooni taalib sëñ Touba te li sëñ Touba woote woon yëpp kenn ku ci ne war cee nat sa bopp gis sa bopp gisut sa bopp xoolaatal sa bopp te nag ni ko jëwriñ yankoo bu daan waxee ci fan yi néew loolu képp am keroog laata muy dem woona mag ñëpp njaareem la woo na mag ñëpp ñu yonent bee ko wax mu layoog ay sañu borom wax mu layoog ay taalibeem la balaa yegg si keroog la xaajoon ñeenti taalibe yi ka ci ñeenti xaaj dafa wax ni kii dani man la yaakaar di jaamu yàlla nam ware waaye duma liggéeyal duma jox àddiya ci fen wu làqu la ne loolu la sëñ Tuubaa wax dani kii man la yaakaar nee na di jaamu yàlla na mu waree duma liggéeyal sëñ Tuubaa ci fen wu làqu la ne daan kii day jaamu yàlla na mu ware waaw kii dañu man la yaakaar di ma liggéeyal waaye nag ibaadaat yi moom ni ñu koy waxee ni ñu jàppee noonu lañ koy defee du ko defee nee na dees na ko isaab waaye fii lay jëm ci kaw suuf daan ne keneen ki ci rëbb santaane sañu borom yi tuwaat fa kàlla mooy day jaamu yàlla na mu waree teg si di ma liggéeyal na mu waree maa ngi moom fii at fa ñu jëm. daan ne keneen ka ca des nee na man la yaakaar jaamu yàlla du ci jaar te liggéey bii ñu may wooyal te du ci def dara sëñ Tuubaa nee xaw ma ko fii xaw ma ko fa jëm ba ma noppee nag daane daa daane taalibe yi kenn ku ci ne na nga natt sa bopp ci ci ci ci ñent yi te loolu ba jamono jii ñu nekk nii kenn ku ci ne da nga cee war di natt sa bopp nañ leen dellu laxasu sañu borom jaamu yàlla bu wér te muy dëgg te looloo yoon te nag dañoo war a xam ni nit ñuy def ba bu ñu waxtaanee keneen ku dul murit di fëgg sañu dënd naan ko ñoo la gënub sëriñ war na ñoo góorgóorlu ñu nit ba sañub sëriñ bu ñu ñëw jàq li ñuy def ci kaw suuf nawleem ya mu nekkal foofu maa ngi tuub sax ci jégum ndax sëñ Tuubaa amul nawle waaye ña mu nekkal foofu ñoom ne jàq xam ne maanaam moo ñu moo leen gën i taalibe te loolu ni ñu koy doxee neen képp la na sañu sëriñ defoon ba gën ci sëriñ si ñu taalibe yi noonu la ñu war a def ba gën ci taalibe waaye du ay du ay wax ay jëf la mooy sellal sañu jëmm yi jaamu yàlla ba xaw a dee lu ñu am liggéeyal ko sëñ Tuubaa jox ko ko looloy dëgg fu waay nekk doon ab murit man moom damay wax ne set gii ñuy soññee set gii ñuy soññee xanaa ku dul joxe addiya du dem ci daayira yi waaye barki Sëñ Tuubaa murit bu dee dem ci daayira di jox addiya na mu war a kenn du ko soñ ci set wallaay lazim man gisuma ko bokk foo ko fekk lu baax lay bëgg lu baax lay lekk te lu mu am jàpp ne Sëñ Tuubaa ko moom mu jox ko képp ku ñuy soññ nag ci tilim géeg set gi seet ko ba ci biir du joxe addiya du dem ci daayira yi deful nawle murit yi waaye barki Sëñ Tuubaa Mbàkke koo def new lu murid yi foo leen fekk ay jees ñeer la ñuy lijjanti at bàyyi laat yu set ak parfum yu baax te lu ñu liggéey xaajoo ko jox ko Sëñ Tuubaa addiya dëgg Sëñ dafa defar ay jaamam ba noppi wallaay lazim du caaxaan kon nag nañ leen góor góorgóorlu ci yooyu te xam ni loolu mooy dëgg te it am personnalité sañu bopp ay murid lañ ay murid lañ Sëñ Tuubaa daa fekk yonent bi tànn ba noppi mu tànnat ci foofu def ci jibam ay pe dañu war am personnalité ba Sëñ Saaliw kenn gënuñu at yi yi ñuy wër nag Sëñ tubaa moo wax ne sañu borom dajana li ci daara yi dund yàpp teg ko ci loxoom ana nan ngay rombe maanaam sañ njaboot di fekki njabootu jàmbur di leen jox amul kon ñun kenn du ñu njëkk a am waaye nag nañ ko teg ci yoon ndax Sëñ Tuubaa am na loo xam soxlawu ko alal ju lew la soxla alal ju new la noo koy wute dangay ngay xëy fajar julli jàng ci xasida yi ba ne ar tudd sëñ Touba dugg ci àll bi loo jot xam moo la ko jox boo wàccee nag xayma li nga yor jox sëñ Touba gen wàll gi looluy dëgg ba sëñ Saaliw ku leen ci raw nag koo ngeen gis ci dëkk bii mu mel ni mel ba ñëpp di ko tudd di ko gis ca kaw xaw naa dee ci liggéey sëñ Touba bu la ko waxee bu amul loolooy dëgg keneen ku deful lii nag di say moroom dana la raw te doo xam bu ñu jaar waxi sëñ Touba la du yàqu kon li am mooy nañ leen di dem ci daayira yi nañ leen di jël addiya yi di ko jox sëñ tuubaa bu ñu wootee nañ leen dem guddee nañ leen dem guddee bu kenn ne guddi na dee déet mais fan la Sëñ Tuubaa nekkoon maa yomba la ne woon ak barab yoo xam tey jii barab boo xam yow amoo fa nekk amoo fa lal amoo lu lay tiim taw me naaj bi yëpp sa kaw la daan ne nga ne ci dëkk bi bu ñu waxtaanee ba une heure du matin jot rek nga tàmbalee kobas naan guddi nañ tëddi te ni Sëñ Tuubaa ngay liggéeyal du dëgg barki Sëñ Saalu Mbàkke du dëgg nit nag boo dee barkeelu ci jëmmam da ngay fexe maanaam fa mu jaaroon ba tar donte sa maqaama yeggu fan mais nga jaar ci tartar yu xaw a mel ni moom te mooy di jéem a yëg li ngay li ngay li ngay def lan la addiye ji sax buñ ko dee joxee te yëguñu ko nañ xoolaat li ñuy joxe waaye dangaa war a denc dangaa war a denc xëy 24 décembre jot ñu woote addi Sëñ Tuubaa ne dañuy tabax kër Sëñ Tuubaa mu leer la ñetti fanal ci des benn xel mi ne la demal ci galeria bi ci xaw naa manqué ñu xëy woote barke Sëñ Tuubaa Mbàkke demal ci denc ba boo ko nee caas jox ko balaa diir gu gàtt mu duyee la galeria bi te doo xam fu mu jugee loolay dëgg barki Sëñ Saaliw Mbàkke leneen lu ñu ci wax nag lu dul lii ñu ngi naxee sëñ Touba gën a gaaw ci ñun ay sëriñ sëñ Touba gën a gaaw ci ñun ay petaaw dama koy wax saa su ne ku sa bopp di mettee ji bu ñu waxee ne ngelaw dañ la naan ngelaw seetaanee fa jaar nag ñu la ko jëndoo senegal barki siñ Saaliw Mbàkke balaa 10 heures di jot nga dugal ko te mënoo ci at màggal sëñ Touba bi 4000 pesos te ni sëñ Touba nga yaakaar ak naa ko du dëgg. kookoo gën a gaaw ci ñun sëriñ barke sëriñ Saliou Mbacke li des nag mooy bàyyi kaak sañu bopp bàyyi sañu bopp moo des ndax sëñ bi moom ne woon na ku ma bàyyi sa lépp ma téel la sa lépp waaye loo ca dese ma bàyyi laak moom ñu ngi jéggalu ci kàddu yu bot jóoruñ bu nga xam ne amoon nañu yéene wax lépp barke sëriñ Saliou Mbacke daa des Cheikh fii ci àdduna maami Serigne Mbacke Madina